erootina sunu derot yangootina sunuy siddiit yangootina bu ñuy jóg di way sang bee seexu tëratina saa bu mu duggee ci weer bi xel yëpp da dem ci ku tedd ki hmm. ah, actuellement boo xoolee safar yeeg fi mu ne nii lépp fi mu ne nii commencé na hmm. fépp nga xamante ni tey doomu aadama mu fa hmm. ñëpp dañu yëg ne carrément kat ah suñ na tey ban yëg yi ngeen am ci li nga xamante ni tey mooy ci weeru safar yi ñu nekk nii fi mu ne nii tey ban yëg yi nga ci am yow gaydeel waaw ah. yëg-yëg bi ma ci am mooy bi ci murid yëpp am rek waaw ñun ñun wax naa ko ay morit lañ te sëñ Touba lañ yaakaar. waaw mhm. chaque jour dama koy wax aw ma lu gën a kawe doon taalibe sëñ Touba. waaw samay maam ci ci lañ judd lépp ñëpp ci lañ judd. Mhm. ñun nag dañoo am lu ñu jomm wallaay Sénégal gi dañoo am lu ñu jomm carrément loo xam ne biir na ma ne bu nekkoon ca réewu naaree dinañ jëm di ko siyaare ji mhm. mais nit ku ñuul dafa xaw a am complex waaw. waaye damay wax ne ci ci ci ci li sëriñ bi indi. Mhm. rek buñ ko buñ buñ ci buñ buñ ci kii woon rek. man mhm. nañoo jariñ. Mhm. ci suñu àdduna mën nañoo jariñ ci suñu àllaaxira waaw ndax ci mooy sëñ Tuubaa ànd na ci lépp. ci wàllu développement ak ndaka ngay yore yow. ak ndaka la gone di war a doxee. ndaka nga war a kiyee sa diine ak nan nga war a jaamoo yàlla ba boo boo lëggee yomal xiyaamee nga mën a jariñ kon moom lépp matale na ko. waaw. màggal gi nag moom. Mhm. ñu koy ñëpp di waajee lañ koy waajee. waaw ndax borom màggal gi moo ni toll. Mhm. waaw wax dëgg yàlla ñu koy waaj bu baax a baax ndax képp ku dëkk Touba rek. Mhm. yaa ngi koy waaj bu baax a baax a baax a baax. dëgg la boo xoolee ñu jamono ji ñu toll. taxawaay bi nga xamante ne ah, sëñ Mountakha taxaw na ko ci li nga xamante ne mooy adduna bi du ma ne Sénégal rek yooyu dama naan adduna bi bi ba mu fi ñëwee gis nañ li nga xamante mbënd mi ñëw mm-hmm. sëñ ak taxawaay bi mu ci taxaw mm-hmm. ah toujours dañuy gis ki li nga xamante ne tey sëñ mu taxaw maanaam mun nañ ne kat yi dafa am fu mu bëgg a jëlee Sénégal am fu mu ko bëgg a yóbbu mm-hmm. toujours day jël ay ndimbal di ko def ci li nga xam mooy réew mi nit ñi ah, di ko di ko jëriñoo boo xoolee ba li nga xamante ne tey mooy fële mooy hôpital bi nga xamante ne fële maladie tër gi sax añ dañuy xaaj dañuy añee sax kër sëñ mun taxaa lay jugee bi nekk Dakar fii fi yóbbu añ loolu ban ñu inga cam li nga xamante ne sëñ bi taxaw na ko ni ñi tey moom sëñ Mountakha hmm. wan na yoon wi wan na wane na yoon wi. Hmm. gis nga sëñ taxa jàngal na ñi nga xam ne ay boromi doole lañ yor alal jàngal na leen naka lañ war a mën a dimbalee. Hmm. jàngal na njiitu réew mi naka lañ yoreem réew. jàngal na ndaw ñi naka lañ mën a def ba réussir ñëpp la wan yoon. waaw sëñ Mountakha wane na yoon wi waaw. moo tax dama koy wax dem ma ne man sëñ Touba ci boppam lañ war a laaj ne ko fan la jëlee sëñ Mountakha. waaw ndax jëmm ju mel nii ñun dañoo yéem soo ko xoolee rek sa xool day sedd ci mbëg ngir mbëg mi mu àndal mhm. moom buy def xoolul ki mu war a def xoolul kee fam bokk ak kee fu mu bokk mhm. waaw kon kooku mhm. mën nañoo wax ne xalifatullaahi la waaw xalifa xalifa bi yàlla la ci kaw suuf waaw ndax lan moo tax doxiinam moom xoolul kee xoolul kee xoolul kee des fois nga gis gone naan père de la nation te lu wér la waaw ku mel ni moom moom jafe na lool ci jamono ji ci doxiinam ak taxawaayam ci diina ji ak taxawaayam ci ci ci ci ci Sénégal mm-hmm. waaw waaw koy ñaan rek Mbàkke mu yàgg fi lool mm-hmm. waaw di ñu yàgg jiite mm-hmm. yàgg nekk ci suñu kanam waaw ndax moom yàggam yàggam fi njëriñ la ci ñun am njëriñ la lool ci réew mi <laughs> dégg la ah, ñu xool jamono ji Touba lu bare bari interdit ko ci li nga xam si côté xale jigéen ci sol yi nag ak ci yenn affaire yu bare bare yoo xam ni dañ koy yóbbu ci li nga xam mooy jumaa ji te du nekk du bërëb boo xamante ne ni bërëbu foowukaay la bërëbu jaamukaay yàlla la mais gis nañu xale jigéen yi dañuy jël yenn modd di ko yóbbu si jumaa ji sinab yeeg et cetera yeneen yeneen musique beeg lépp ci li lépp gis nañu dañ ko dàq ren ci màggal gi tey mm-hmm. ah loolu ban yëg nga ci am ci li nga xamante mooy loolu décision boobu maanaam gars yi jël nañ ko waaw ah, borom dëkk ba moom la nañ ko ko defee rek mm-hmm. te Sëñ Tuubaa dëkkam boobu noonu dafa am lu taxoon mu sos ko Mm-hmm. waaye boo ñëwee ci dëkkub jàmbur nag. ne mm-hmm. da nga fay appliquer sa loi boobaa day métti. Mm-hmm. waaw da ànd ak moom ca la mu bëgg. bu dee yow it mënoo ànd ak moom ca loola. ko defee yow it ma boobaa nga jéggoo rek mën a toog. waaye nit moom booy ñëw ci ci ci mbirum jàmbur. na mu bëggee mbir ma doxee moom doxeel doxee doxee do amal doxin woowa rek. ngeen mën a ànd yéen ñaar. waaw kon ñi nga xam ne dañuy ñëw ci màggal gi. la sëñ bi bëgg. ak la mu digle nañ ko defee noonu. waaw ndax loola loola moo ñu mën a jariñ waaw waaw mm-hmm. murid moom digal rek mm-hmm. te képp koo xam ne da wax ne sañ Tuubaa rek la moom nga bëgg te yàlla rek tax mm-hmm. la la sëñ Muntaxaa wax moom nga war a a def ndax sëñ Muntaxaa fii sëñ Tuubaa ku dul riirandoon nag laa wax waaw ku yoon murid rek tax a jóg di nga def lu li mu wax nii dëgg waaw tey ñi nga xamante ni tey ñoo doon def yooyu yan kàddu nga leen di dénk tey ci li nga xamante ci côté xale jigéen ñi ñu bàyyi ko xam nga da cee bari ñoo xam ne bis boobu rek leen ci ñor bu jàllee jàll na dëgg la loolu nag ay mbir la Mm-hmm. man màggal Tuubaa gee tax ma def lii su ma paree daanaka nga gis ñu tatiwaata ñu tatiwaa sa seen yaram bi ba mu fees dell waaw ndax kooku noonu ay mbiram mat naa kii kii man la léegi nag buñ ñëwee nag doxin wa ñuy am ca tubaa day dañuy dañuy jàpp beneen doxin lay doon sol ay mbir yoo xam ne carrément mm-hmm. lii bokkul ak ni ko ni ko ni ko ni ko sëriñ bi bëggee woon ak li nga xam ne mooy moom mooy moom mooy kiiwu dëkk bi maam moom la dëkk bi di dundee noonu la dëkk bi di dundee ku ne xam ne ne Touba diine moo fay moo moo moo moo moo moo moo fa sax te moo fay sax ba ilaa mu din mm. waaw jaamu yàlla fa am topp ndigal yi bàyyi tere yi mm. waaw képp koo xam ne it dangaa bëgg a ñëw mm. ànd ak ñun ci loolu da ngay ñëw ànd ak ñun ci loolu jëfee ndigal yi li sëñ bi bëgg ñu def ko li sëñ bi tere tere ñu bàyyi ko waaw ñi ko doon def ñu bàyyi ko te bu dee sëñ bi rek leen ñor te li ñuy wootee bu dee dëgg la ñu ne ay murit lañ hmm. te suñ Muntaxa fii sëñ Tuubaa li suñ Muntaxa wax nañ ko def hmm. loolu mbir mi waaw ku ci nekk rek la nga jàppoon ci wàllum solum caay ak yooyu hmm. nga muñal ñu ko rek te dem soli ci kii yu rëy yooyu sol si sër yeeg waaw te <laughs> muñal ñu ko waaw dëgg la si xarit doo gende la ñu tuddee ah sëñ xaalis Blok Gaynde lañ la tuddee. man de non sëñ Mbàkke Lo. sëñ Mbàkke Lo sëñ Mbàkke. moom la tuddee. waaw dëgg la daa mel yaa yaa ngi doxin doxin bi di am taxawaay boobu de. Mm, <laughs> <laughs> mm. yaa ngi koy def ci li nga xam mm. eh, eh, internet bi lu am solo la ah. lu am solo parce que njàngale mi daal maanaam yaatu na fi yëpp. Mm-hmm. parce que ku ne si jëriñu mm-hmm. ah, mais des fois am ci loolu naqari waaw man man man man nag bàyyiwuma xel loolu. ah man man même des fois nga gis ay. kii yu a kii. waaw ay commentaire ak yooyu des fois mën cee ñàkk. dëgg la yooyu moom boo koy bàyyi xel da ngay sonn daal. dëgg la comme lu nit wax rek nga ne dégg na ma ma koy ma euh. soo bëggee def tontu. Mhm. soo bëggee def to maanaam soo bëggee luñ la wax rek nga tontu rek bu mhm. da ngay def tontu sax. ab liggéey ndax tontu da lay mat liggéey ndax nit ñi ma bu dee lu wax da nga bëgg a tontu mhm. bu yàggee ab coono rek la lay indil daal coono rek la lay indil sunu derot yëngooti na sunuy sidit yëngooti na bu ñi jóg di way sang be